Euh, moor mu ngi laaj qu'est-ce le président veut réellement ci parce que lii de comme benn jeu de jeu de jeu de poker là finalement. Euh, te li ma ci jaaxal mooy ci biir interview bi bu mujj bi wax na carrément ni am na ñoo xamante ni dañu leen euh, dañoo jàpp ni dañu leen a spolier te dañu war a bokkaat dañu war a ça veut dire tout simplement que ay pexem bu sottee li conseil constitutionnel validé woon ci ay candidature dañ koy kase reprendre le processus. Parce qu'il a bien et ça a été limpide hein ça a limpide que dafa am ñoo xam te dañ jàpp ne dañ leen dañ leen a dañu bodd seen àq ak yelleef et cetera que dañu war a def ba ñu bokkaat kan mooy fexe ba ñu bokkaat alors que nee nañ leen mun leen bokk. Birama maa ngi lay gërëm vraiment ci question bi ma posé moo je pense que Macky Sall dafa jàppee sénégalais ay marionnettes man defe naa ni marionnette la jàppee sénégalais. ndax tey comme ni ñu wax rek conseil constitutionnel ñoom ñooy dogal ñoom laay ñi ko wax en premier lieu mooy que ñoom dañoo war a jël seen responsabilité gis nga fii yàlla rek a fi nekk président Macky Sall keneen ak keneen ak keneen tey xaw ma lan la président fas yéene def maanaam dialogue bi maa ngi gis ni instant yi ni yenn candidats spoliés yàqamti nañ comme ni nga ko waxee ginaar yi cuuc yi jug fële ñeneen dañuy dem nga yëpp askan bi rek laa lay wax képp koo xam ne da nga dem ci jaloo bi da nga yëpp askan bi te da nga trahir peuple sénégalais man loolu laay wax en fait parce que tey mun mënuñu tey def procédure processus bi démarré ko conseil constitutionnel ak lépp lu ñu préparé ba à la minute ñu ñuy wax ay dialogue ay consensus ay c'est-à-dire amnistie xam nga moom laay wax chaque fois ñun candidat yi nga xam ne maanaam tey ñoo jàll dama leen ne ñun suñ jëm bopp neen booloo mooy li fi xewoon maanaam 2012 jële fii xeexax kii ba pare doogu di lijjanti ndax tey mu ngi bëgg a créer beneen combat mooy tey lu muy wax ak spoliés yi ak tey candidats yi ngi recalé recalé ñooñu bi ñu defee seen bloc mooy ça veut dire que maanaam nous avons deux deux adversaires mooy le président Macky Sall ak ñi nga xam ne maanaam tey ñoom ñoo ànd ak moom mooy ci ci dogal bu muy dogal tey kon ça veut dire tey ñun ñi xam ne tey. non moom moom Sénégal a chaque dialogue moom day gën a diviser opposition. parce que ñam naa ko neex na banaa ko amul fenn à chaque fois bu nee dialogue. ñii ni dañuy dem ñii ni demuñu. opposition bi féewaloo. moo tax aussi mu ngi koy bis répétiteur depuis boobu. non mais parce que ñoo ko may tamit parce que ñun dañu waxante dëgg quoi ñun tamit dañu waxante dëgg ñun il faut que ñuy dëggu ñun ñu xam ne ñoo bokk mbir bi foog ñuy dëggu da ngay gis tey nga wax li ngay wax nii nga gis kenn ku rocceeku dem yoonam. Mm-hmm. trahir mm-hmm. foog tamit loolu tamit foog ñu bàyyi ko. foog ñuy waxante suñu dëgg ñuy waxante dëgg ndax ñun ay nawla lañ. mais da war a xam ne opposition bi tamit dañu àndandoo nii mais bokkuñu bokkuñu ay objectif. dañuy àndandoo mais àndandoo bi kaa parce que coow am na te ni ñu ngi ci opposition bi mais àdduna du a naqari kam dañu am majorité sax à l'Assemblée nationale bu mënal majorité groupe parlementaire sax duñ kon ñooñu bu ñu nekkee ci bi di wax wax ñu bari am na leen loo xamante ni bu ñu leen ko joxee dañ duñ ko sax gëmee. mais mais loolu mooy ñàkk maanaam gëm sa bopp loolu mooy ñàkk gëm sa bopp loolu en premier mais tey damay wax benn affaire dañoo toll ci benn moment mooy ban mooy que tey il faut que maanaam tey président jox ñu date loolu rek mooy mbir bi. tey soxlawuñu leneen nee na dialogue bi deux jours date date bi la ñu soxla ñu soxlawuñu leneen soxla ñu soxlawuñu consensus ñu leneen réew mi wax dëgg yàlla yàlla daf na ni téye na ko ci 2012 ba nii ñuy wax ak nii daf na lu mu war a def deful lu mu war lu def mais na rafet. tey daf na woon loo xam ne maanaam tey histoire du Sénégal duñ ko a fàtte mooy un président bu génn taxaw neen tey bàyyi na ndombal pare na ci ba ñëpp applaudir ko ñëpp félicité ko nga dem ba ci biir delluwaat encore loolu mooy wax waxeet bi fi amoon rek te gëm naa ni li amoon 2012 boo mootul mooy amaat encore ndax boo xoolee 2012 wax waxeet amoon na fi kii moom waxuma la wax waxeet kii dafa wax waxeet waxeti moo waral tey il faut que maanaam la jeunesse laay wax surtout nañ bàyyi chaque fois bi ñu wootee ay mobilisation tamit ñu leen di utiliser di leen jox ay 2500 ay 3000 ça prouve que ñoom tamit li ñuy wone yi parce que au niveau international dañuy nekk vraiment le président Macky Sall sénégalais yi bëgg nañ ko mbooloo bi gisoo ñu ngi di dar ko gis nga démb li xew démb démb ñiy woote fii ñuy woote fee. samedi voilà samedi ñiy woote fii ñiy woote fële. léegi loolu noonu boo gisee da ngay ne ah Sénégal jàmm ngi fa kon li di wax ci président Macky Sall loolu amul mais ñun ñoo war a yeewu takk suñu ndigg parce que sacrifié wu neex na trop naam ñu jox la 2500 mais na fekk moom mu nekk loo xam ne da lay est-ce que yaa ngi comprendre Birame loolu moom loolu loolu la jeunes yi war a def tey nag conseil constitutionnel ñoom seen jëmmi bopp man je pense que dañoo am tuuti faiblesse ci président Macky Sall parce que tey bu demee ba ñoom sañ jëmmi biir ñoom ñoom ñoo téye réew mi fi mu toll nii ñoom ñoo war ñoo war ñoo war a tey jël ay décision décision yooyu mooy lan mooy que ñun comme li mu wax rek ñoom ñoom ñooy suñu kilifa fii ci réew mi d'accord président Macky Sall nekkatul kilifa sénégalais parce que le 2 avril fi mu toll nii may keneen ñëw mais dama bëgg conseil constitutionnel ñoom ñu jël say responsabilité te ñu suivre tey li nga xam ne mooy article yi ñuy wax ci code électoral ak li nga xam ne maanaam tey moom mooy càmmu Sénégal loolu daal laa xam ne maanaam loolu ñu waxagum en attendant ñu xool ci